suma isaa lam yu jadoo su fekkente ne ñamu tooñoon dundatuñu fal yardu na delloo alal ja liwaa risi himu ñeel ña koy don ku tooñoon nit kooka dundatul te nga bëgga tuub tooñ nga dellool alal ja nga ko tooñoon koy don bila tara dudi ci lu ak déngi-déngi na nga ko jëfe noonu suma isaa lam yu jadoo su fekkente ne nag ña koy doon dundatuñu te saddaxa nanga nga saraxe bihaa ca alal ja anhum te yéene leen yool ba su ko defee su boobaa bu dee yow néew ju doole nga tamit man nga caa saraxu te ñaanal leen te saxoo nag ak tuub ak ak ragal yàlla ak baril aw yiw ca sunu boroom ndax ëllëg nga am loo faye say bor ca ña nga yoraloon ak loo duge àjjana mu ne kasaanii kat xakaa la ko nettalee man ña nga xam ne xaqaxaa dëggu nañu ci xam-xamu feq tey jural aw yiw ak ngërëmal yàlla jaamab yàlla boo neppee ca loola yow miy tuub wa yastaxilu na nga daganlu kulla irdin bépp der boo xam ne akalaa lekkoon nga ko bi xiibatin ci jëw ndax yàlla wax na ni jëw mi ngi mel ni ku tiim nit di ko lekk kon nag képp koo xam ne mas nga koo jëw te nga bëgg a tuub te bëgg yàlla nangu sag tuub demal ba ca moom nga ne ko baat sàngam maa la ko waxoon maa ngi koy jéggulu su boobaa dangar jaca ne ca meram yàlla ma ca ne bu la sunu boroom faxasal la ko mooy nanga nga daganlu der ya nga lekkoon bi xiibatin ca jëw ga nga doon jëw i tuubal ma mu jéggal la yàlla oyofal dangari naqar wa nga ko ca tegoon aw xasfin mbaa bépp jaamab yàlla boo xam ne xasoon nga ko aw satmin mbaa bépp jaamab yàlla boo xam ne ŋàññoon nga ko jalaa ŋàññ wow yëkkatiku na ba nanga dem ca ñépp kenn ku ne nga jàkkaarloog moom ne ko maala defoon nangam maa ngi lay jéggulu in kaana njeem kooka nekk na haadiran di teew ci kaw suuf ma ngay dund wa ama in foqid bu fekkente ne nag kooka faatu na moom mi tuub fal yuksiran nay baril xayran jëf ju yiw laxaloo ndax lee yajid mu ame ca yiw woowa say an mbir mu yaatu mu yiw moo xam ne yu waddi dina ca mën a amee ba egg ci àq kulihim mën a matal àq kenn ku nekk ca ñamu tooñoon kerug bis penc bii ca yëw wa mu mën leen a fay ba desel ca lu mu dugge àjjana mu boole ca mustaxfiran nag fu mu toll di jéggulu sunu borom ay bakkaaram kii di tuub daal bu jëfee nii wal yarju sañ naa yaakaar nag waaw fa rabbi sunu boroom jéggal ko ndax loolu ci ngay mën a amee sunu boroom jéggal la yow miy tuub bu nuppee moom jullit ba ma ngay wax ak moom ba tey ne moom jullit wa isuhoo na wattu lisaana aw làmmiñam min farsaa'i ci di ca wax aw ñaaw téef wa min xabiihil xawli ak mu di ca wax wax ju bon wal miraa ak mu di ca werante kenn ku nekk saw làmmiñ nang ko laggal ci lu neex yàlla waaye bu ko laggal ci yu matadi yooyu aqiqatul xawli dëgg-dëggi wax ju bon nag alxabiihu ca wax ju bon jëgën a bon nag kulama mooy lépp loo xam ni takkoonu nekk nga sa ay di boroom kersawu minhu ci jëf loola ñépp di la gis lépp loo xam ne rus nga koo jëf ñu di la gis boo ko jëfee ba noppi di ko nettali la ngay wax wax ju bon la faxlama na nga xam maanaam pour leeral la loolu boo duggee ca toilette ya lafay fay xew lépp dagan na ca toilette ya waaye génn di ko nettali wax ju bon la maanaam ci biir néegu sëy la xew ba ñu woo mbooloo ma def baas def loole ñuy wax ngénte loole yépp dagan na waaye di ko nettali ca mbooloo ma nag lu jiitu ngéntey am ngay nettali la xawoon loola wax ju bon la loola araam na bàyyi na foofu wa jawwazoo daganal nañu tasrihaoo leeral mbir ma indal baliit ca ka nga xam ne daa dese boo ñëwee di ko jégglu di ko balu aq mu ne la wax ma lan la ma doog laa baal su boobaa daganal nañu nga leeral ko in kaana njéem jëmu ja nekk na koo xam ne laa yafhamu mënu la xam talwihan ab junj boo xam ne yu fiid doy kon na ndax nit ku nite moom boo ñëwee ne ko baal màq rek mu baal la jullit noonu lay mel waaye dafa am nit ñu naqari ña naqari bopp nag ba dañ la naan ah non danga may wax lan la danga may wax su boobaa nag nee ko maa waxoon nangam wala maa defoon nangam jéggal ma bu la jéggalee jéggalu nga ko bu la jéggalul jéggalu nga ko ndeysaan aqiqatul miraa yi dëgg-dëgg werante tamit dañ koy tere ab jullit dëgg-dëggi euh, werante nag indaman ca waroom xam-xam ya nga xam ne dara géeju nañu ci xam-xamu diine dëgg-dëgg werante juhoodul aqi mooy weddi dëgg ba dama xat saxara ginnaaw ba dëgg leere nañ yow nga tëb weddi ko ña koy def nag mooy li ëpp a bari ñay boroomi daraja amuñu jàng te di xeeb ñay waroom ak jàng su ko defee ñooña wa dafuhoo dañuy jiñ dëgg weddi dëgg bi baatilin teg fak neen wa baasi teg faw ay bu waa ji waxee ñu duma ko ndax boroom da lañu boroom doole lañu